dañoo jàpp ne c'est c'est l'atmosphère de fin de règne qui inspire ces comportements là. dama ne xam nga wax naa ko ci benn rajo Abdoulaye Wade d'accordul woon ci troisième mandat bi de. waaw mais déggoo li ma la nga doon gis yëpp. ñuy wax naan Macky Sall ñëwal troisième mandat defal nangam nangam kan nga ci gis. parce que les gens ñuy wax way da ngay teey nang looy teey président Macky Sall tey la war a gën a am ceinture de sécurité autour de lui parce que xam nga lu tax. dafa liggéey ci réew mi c'est un homme qui est digne qui fait énormément de choses dans ce pays donc je pense que ñi nga xamante nii ñoo nekk ak moom démb nekk ak moom tey dañu war a gëm yàlla te xam ne xam nga gis nga àdduna yàgg naa ko wax lépp loo gis ci àdduna dina dem ba benn moment mu jeex président Macky Sall ñaari mandaam fii la yem aujourd'hui xam nga lan la war a def gën a góor góorgóorlu pour perpétuer son règne parce que àdduna nit dafay am dignité nit dafay am conviction nit waxu démbam dafay doon jëfu tayam doon xoolu ëllëgam parce que man dama jàpp ne au niveau de Benno Bokk Yaakaar comme ni ma la ko waxee le groupe aujourd'hui tey la gën a soudé le groupe tey tey la gën a taxaw bu fekkoon ne am na loo xamante ni war nañ ko def comme ni ñu ko daan defee pour accompagner le président de la République di nga xam ne moom groupe parlementaire aujourd'hui